moo xam ci réew mi nga nekk ak lu génn réew mi rek xam nga bis bu rëy bi nga xamante ni it murit yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci ndakaaru ñu ngi ko fi waajal bu baax a baax muy màggalug jullik géej gi ñi ngi fii nag ci jàmmalaay ku gis fii ñu toog nag xam ne ñu ngi fii nag ci pàkk bi nga xamante ni fi la programme bi lépp di ame fi la julli gi lépp di amee fi la cérémonie bi di amee waaye ñu toog ak suñu kilifa suñu lépp muy sëriñ alhaaji sëriñ jili ñang di ko ñaanal suñu boroom gën koo kattanal liggéey bi nga xamante moom it kenn ku nekk am na ko ci muy liggéeyal Serigne Touba ci lu wér suñu borom gën koo kattanal gën koo dëgëral ba lim ci bëgg suñu borom matale ko bu baax a baax a baax a baax waaye sëñ Jili mu mel ni kuréel gi kenn dootu la ci présenté ti dara ci euh, doxalin bi nga xamante ni it am na fi mel ni euh, ay at yàgg nga ko ànd ak ñoom di ko dund ak ñoom Eh, du ñàkk eh, en tant que sëñ Jiri Ñang mu def ay càmbar yoo xamante ni it kuréel gi ñu ngi koy doxee te néew lool ci mbooloo yi nga xamante ni ñooy taxawal màggal yu mel duñ ñe bis dañuy naan yu mel nii sëñ Jiri aousubillah bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah lisaani nawil janaani sarfi amaani wazid baraye asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa sëñ Modou euh, Faye jërëjëf euh, yaak euh, ñi nga àndal ak mboolem ñi nga seqal liggéey bi murit moom mooy mooy xër rek waaye lii sunu jëwliñ sëñ Babacar mbay wax doyoon na sëkk bu fekkee lu baax dana doy ndax yaakaar naa ne li mu leeral ci taarixu kuréel gi ak ñi ko seq njaboot sëñ yombul nga gis kuréel guy liggéeyal Serigne Touba am taw féexu am li kuréel fàttaliku ju liggéey ji am waaye nag événement bi moo ni toll ci biir ay waxam dégg nga mu xamle ni ci ci téere yu njëkk yi ba téere yu mujj yi kenn gisagu ci fenn foo xam ni nettali nañu ku yàlla jaral nga julli ci géej ci sëñ bi lañ ko mës a dégg boobaak léegi itam 21 septembre 1895 ak léegi déggaatuñ ko ci keneen sëñ bi sax am na fu muy waxee man man chàkk fii fal yu jara bi wa man hu jara bi baha bi taxalu bi kon moom xamoon na ni jamono dana dikk am ñuy am sikki sàkk ci loolu moo tax mu ne ku ciy sikki sàkk nee na jéemal nee na jéemal nee waaye ku jéem hmm, baha bi taxalu bi di nga des ci njàqale waaw yaakaar naa ni nag faf sax kenn jéemu ko xëy na nag nit ñi dana am ñuy wax naan murid yi ñooy wax ak yu mel noonu waaye ñun jëlee nañ fu wér Euh, sëñ Abdou Khadir ci boppam moom sëñ Touba di sunu yaakaar tey ak ëllëg bu nee gëm na ko ndax ki ko nettali sëñ Touba ko nettali doy na sëkk sëñ Amsatou ko nettali te sëñ Amsatou sëñ Touba ko nettali te sëñ Abdou Khadir xam na ci sëñ Amsatou ragal yàlla goo xam ni xam na fi mu tegoon sëñ Touba foo xam ni du ko nettali lenn loo xam ni jógewul ci sëñ Touba ñoom ñooñu ñooñu sëñ Touba defaloon dañoo sax dafa am yoo xam dañ ko jomboon waaw. ni ñuy waxee am yoo xam ne day jomb ab yonent du ci jaar ndax suñu borom ni mu leen mële da ci am loo xam ne du yegsi ci ñoom sëñ Tuubaa itam ñi mu jëkk defal saxaabaam yooyu ñooñu noonu la ñu meloon. ba tax na kon kuréel gi euh, sëñ Tuubaa moom la yàlla defal daraam du réer waaw looloo tax ngay dégg kuréel fàttaliku julli géej gi kuréel ñaar raakee ca Ndar kuréelu ñibbi si sëñ Tuubaa le 11 novembre 1895 kuréelu ñetti guddi Dakar yooyu yëpp sëñ bi la sunu borom faye daraam du réer waaw daraam du réer lii nag di jëf joo xam ni ni ko jëw lañu waxee léegi bare na lu luñ ci war a jàng ndax sëñ Tuubaa wane na ci ngor ndax as gor mooy jàpp te du bàyyi julli dëgg dëgg dëgg gor moo ngor ngor waaw ndax bi nga nee ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu wa sallam joxe nga sa bopp waaw te saa yoo jullee ni iyyaka nahbudu wa iyyaka nasta'in waaw du jaamu ku dul yow kon sëñ Tuubaa gore gi mu gore digganteem ak boromam moo tax bi waxtu yu jotee mu boole ci lan fit xam nga bato buy daw nga xool géej gi nii te fii fii ngay xoole géej gi nii doo tiit waaye ñun ñi nga xam ni tukki nañu ba tàyyi ci géej yenn saa yi duggee ci géej ba gis ba sore gisatoo fenn dëkk lu dul ndox rekk lay wër gis ni vagues yi def waxuma di wàcc ci géej gi waaye yenn saa yi xool géej gi sax doo ko mën ñun loolu dal nañu ay yoon kon fit dugg na foofu waaye jom ji jom ji nag bi mu defee loolu yëpp ba noppi lan la sëñ jàngalewaat mooy gore ngor mooy ngoruk ñii kat dama ànd ak ñoom am loo mu am loo xam ne dañ koo bind te dan nee naa leen lii itam daa ngi jamono dana ñëw ngeen weddi ko dañ ko bindoon ni kuy indi ay fitna la prédicateur de guerre sainte la ñu bindoon ci rapport bi waaye dàqul dàqul jiyaat gi de waaye lan la leen tontu inni ujaahidu bil uloomi wa bi tuqaa abdan xadiman wal muhaymin saahidu dëgg la damay da ngeen ne damay prédicateur de guerre sainte la waaw je fais la guerre sent waaye nag je le fais avec la science et la crainte inni ujaahidu loolu gëm yàlla googu moom la wane ci le 21 septembre 1895